bu dee mystique a côté bu moo doon ñoo gën a pare si kattanu yàlla. ñoo gën a pare si plan yëpp moom match bi leneen la si am muy wax ji la ci te bu ñëwee daal di xam lépp dëgg la. le football dafa am ay réalité parce que doo dajeeg sa sa naataango rek ne da koy duur à 100 pour cent je peux m'assurer que ne xajuma ci jàpp ko bon boo xoolee màgg daan daanaka si jàppoo si màgg daan la génn jàppoo si màgg daan la génn. match la boo xamante ne nii day daje ki nga xamante ne nii moo juddoo ci ASC bi muy ASC jàppoo. donc ce sera pas un match facile. kon Maguette Dame nekkul na équipe boo xamante ni gisuma lu mu mën a def ba tey jàppoo gisuma ko gisuma ko bu dee football ñoo leen ko dàq mystique ñoo leen gën a pare rassemblement ñoo leen ci gën a pare. Euh, match boo xam ne bon jaaxaluma quoi parce que ci équipe bi laa joué ëlbatiku tey aussi jël équipe bi. bon su ma juum la fois passée série lañ ko éliminé mais incha allah si kattan si terrain bi lañ koy doole 2-0 incha allah bu neexee yàlla. ASC Maguette Dame il prépare un match dès ne ko sa adversaire taxaw na jël ay préalable def ci quatre du côté mystique côté boobu mom je peux me rassurer que ASC Jàppo waxuma la ndax ñoom dinañ gis kay wala déedéet mais bu buñ une chance lool lool lool lool est-ce équipe bi terrain. maa dégg lu nekk na ci biir dëkk bi ñi naan euh, revanche mais man jàppe ma ko man confirmation la ko jappé te bu soobee Yalla damay confirmer parce que amna ngëm-ngëm bi ah naa aussi sama wa koñ. yàlla nañu yàlla yobu demi final quart de finale bi ñu koy waaj bu baax. Magadaan moom ku ko xam xam ne nawetaan moom ñun dañ ciy dem ba jeex ko te incha allah euh, dinañ ko pare dinañ ko waajal ni ko war a waajee euh, en tout cas daal di gis match bu neex di ci woo waa Caajaay yëpp ñu ñëw seetaan si ko ko